salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam waaye di ko sàkku ci yéen Haj Malick comme ni nga ko xamee daanaka actualité bi gën a biir mooy homosexualité ak dalal bi nga xamee ne le président Macky Sall mu ngi koy def yenn yi mu jëmale ko ci ulama yi yenn yi mu bëgg a nax euh, askan wi xam nga le président euh, makisal boo xoolee discours bi nga xamee ne moom lay tenir bu demee bitim réew ak discours bi nga xamee ne moom lay wax ci wolof bu nekkee ci biir réew mi mësta nekk benn ci affaire homosexualité muy affaire euh, góor jigéen xam nga li ëpp ci suñu borom xam-xam yi wala ci suñu mag yi daanaka ñoom lii nit di wax dañ koy fonk te dañuy jàpp ne dëgg lay wax fekk ku mel ni le président Macky Sall bu demee bitim réew ñu ñëpp dégg nañ ko mu wax ne Sénégal pareegul pour légaliser góor jigéen ndax dañoo nekk ci benn agenda boo xamee ni ñoom préparé nañu ko jàpp ne fii ak 2030 wala lu ko yées tuuti Sénégal dina yegg ci légalisation góor jigéen moo tax boo xoolee article bi nga xamee ne moom mooy 319 euh, bu code pénal alinéa 3 issu de la loi numéro 66 trait 16 bu 12 février 1966 ba léegi kenn pareegul pour changer ko te mu nekk article boo xamee ni ñu ngi ko copier ci article France ga ca 1942 kon nga gis ne eh, suñu réew mi di réewum Sénégal faw nag suñu boroom xam-xam di bàyyi ndëgg sërëx yi nga xamee ne gouvernement bi daf leen koy eh, tëralal gisa Sëriñ Tuuba Xaadim Rasul radiallahu anhu dafa waxoon ne mu ne boroom xam-xam nit yi diine war naa moytu niti nguur donte ke ne sax bu dee conseil bu baax la koy jox ndax ñoom toujours rek ci plan négatif ci lañ daal di mm, nekk mbirum góor jigéen lu ñu war a criminaliser la ci biir Sénégal gisa boo xoolee élection yi jublu ak élection yi génn képp koo xamee dafay laale ci góor jigéen rek dafa koy ñàkk loolu ak suñu borom subhanahu wa moom moo ko wax inna lazina yuhibbuna an tachia alfahisha fi lazina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal kon bu fekkee ne da nga bëgg nax une population bëgg a nax benn population pour gëm loo leen ci wolof ne Sénégal du mës a légaliser góor jigéen tant que maa ngi fi nekk parce que xam nga ne agenda bi dafa jëm ba ci kanam ñu ñëpp jéggi nañu le président Macky Sall mu wax ne nañ ñu may temps ndax de yéen occidentaux yi su fekkee ne da ngeen a bëgg a góor jigéen il suffit d'un seul temps bu tuuti rek ngeen daal di bind benn loi génne ko mu ne waaye ñun ñuy diine ak suñu aada. ak euh, suñu population mënuñ koo accepter ci daar daar kon nag nànk-nànk la ñuy def ba keroog ñu fa yegg mu wax tubaab bi ne may leen ñu temps loolu moo tax ngeen di dégg ci discours am muy tenir ne tànk a ngi nekk président de la république parce que xam na ne fii ak 2024 bi nga xam ne ci la ñuy abal xam na ne légalisation góor jigéen euh, du ko fi def parce que xam na agenda bi fan la commencé ak fan la yem ala kulli xaalin suñ borom subhanahu wa taala li mu waxoon ci góor jigéen xam nga sax balaa ma yegsi woon damay wax ne Sénégal acte contre nature moom ci loi bi nga xamee ne moom la code pénal euh, article numéro 319 di wax euh, acte contre nature la loolu rek lañ soxla ñu leeral ko homosexualité mooy góor guy sëy ak góor bu ñu waxee lesbienne mooy jigéen buy sëy ak jigéen bu ñu waxee trans mooy góor goo xamee ne day nam ñu sëy ak moom waaye moom it dafay sëy kon lii moo fi nekk lii kirim la ndax day suñu borom subhanahu wa taala ñi nga xamee ne ñoom ñoo ko fi defoon boole ko ak bokkaale ñooñu day bi mu leen di boo dafa ëlbëti suuf euh, seen kaw jël li nekkoon ci kaw yóbbu ko ci suuf ñoom ñoom ñu ànd de yamu ca waaye mu daal di taw seen kaw ay xeer falamma jaa amruna ja'alna aliha saafilaha wa amtarna alayha xijaaratan min sijilin mandud kon képp koo xamee ne dafay def acte contre góor jigéen kooku li war mooy ñu rey ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la waxoon wax naa ko ay at ci ginnaaw ñaar jàpp ñetti at ci ginnaaw maa ngi wax ne képp kuñ jàpp muy def mbirum góor jigéen kooku dañ ko war a rey ndax buur bi subhanahu wa moom moo ko wax képp koo xamee ni mu ngi leen dooleel kooku dañ kaa war a génne suñum réew axriju ala luuti min xaryatikum ñoom day góor jigéen yi loolu lañ waxoon luut mi day ak ñi ko topp nañ leen génnee ci suñu réew ndax ñoom dañ ñoo bëgg a jubal kon nag ñun tam bu fekkee ne quatre-vingt-dix à quatre pour cent lañ des musulmans waaye cent pour cent croyants dëgg-dëgg képp koo xam ne mu ngi def mbirum góor jigéen dañ ko war a rey wala ñu génnee ko ci réew yi képp ku leen di doole li nañ fexe moom it bañ fexe ñu ñàkkal ka euh, doole Euh, mbokk yi gis nga Sénégal mooy premier pays africain ma ne Sénégal mooy premier pays africain boo xamee ne def na programme de santé jëmale ko ci góor jigéen kon loolu musiba la loolu mooy wane ne ñi ngi ci programme ci agenda boo xamee dañ leen war a dooleel kon nag maa ngi ñaan yéen suñuy borom xam-xam maa ngi ñaan yéen suñuy kilifa diine ndëgg sërëx bi nga xamee ni le président de la république muy Macky Sall moom la leen bëgg dugal bañ leen ko lànk leen ba tëdd ci suuf ndax du dara du woo ay kilifa euh, biir palais ba ñu ñëw nga naan leen tànk maa ngi nekk président de la république duma ma légaliser góor jigéen ñoom dañuy jàpp ne yow yaa ngi taxaw ci dëgëral ne góor jigéen kenn du ko légaliser fekk au fond li fa nekk mooy sa programme mooy programme de légalisation de l'homosexualité au Sénégal te loolu bu ko gouvernement bi nangu yi ñun duñ ko nangu ndax ñun ñëpp dégg nañ le président euh, Macky Sall mu wax ci tubaab yi ci occidentaux yi ci France mu wax leen ne tant maa ngi nekk président gouvernement bi moom du am problème mukk ak góor jigéen ñi wallahi wax na dëgg gouvernement bi du am problème ak ñoom waaye ñun population bi ñun jullit ñi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo euh, tegu euh, ci charia ñun ñoo wax ne góor jigéen nanguwuñ ko duñ ko fi nangu tey duñ ko fi nangu ëllëg nañ ko criminaliser te gis nga wax na dëgg ba tey parce que boo demee ci article 319 bu code pénal da ngay fekk ne amul benn loi amul benn euh, mbir bu ñu teg rek wax ne góor jigéen dañ ko war a condamner déedéet li wax mooy kuñ fekk ci acte contre nature kooku dañ koy tëj de un an à cinq ans waaye dañ koy amende de cent mille jëm ci un million cinq cent xam nga ne lii depuis 1965 70 lu ñu war a changé la wax naa démb ne euh, euh, góor jigéen 1965 nekkuñ fi woon ci takkante góor jigéen yi 1966 nekkuñu woon loo xam ne dañ leen di légaliser kon ci jamono jiñ toll nii nag puisque mbir yi avancé na dañoo war a nag criminaliser li nga xam ne moom mooy góor jigéen képp kuñ ci jàpp ñu rey la wala ñu tëj la caabi féete la ginnaaw illa yow mi diini mu nekk peine de mort mbokki jullit yi li moo nekkoon sama position démb ak bërki démb moo nekk sama position tey mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne yàlla rëbb na ñi nga xamee ne ay góor jigéen lañ waxaan ne képp koo leen fekk nag muy def mbirum góor jigéen na ngeen rey ka kay def ak kañ koy def faqtulul faaila wal mafuula bihi loolu sallallahu alayhi wa sallam daal di wax mbokk yi ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa mu may ñu dégg ak topp yàlla wan ñu dëgg bañ xam ne moom mooy dëgg ba président la république bu teniree benn discours en français ca bitim réew tenir beneen discours en wolof fii ci biir réew mi ñu fexe ba xam ko daal di xam ne lii ñun duñ ko nangu fexe ba xamal ko suñuy mag fexe ba xamal ko suñuy kilifa euh, diine ba xam ne ñaari wax yooyu nga xam ne moom lay tenir duñ ko nangu waaye yàlla wan ñu ay caaxaan bañ xam ne lii caaxaan la muy mbirum góor jigéen ak yu ni mel bokkaale ak yu ni mel ñu fexe ba wan ko ginnaaw wasalaamu wa rahmatullahi wa barakaatuhu